wa inni u'iizuha bika wa dhurriyyataha mina shaytaani rajiim rabbi inni a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun laa hawla walaa quwwata illaa billaahil aliyyil aziim yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ñi ngi nuyu mbokk jullit yi nuyu jullit di nuyoob lislaam di nuyoo bi sunu boroom taamu ci jullit ñi di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm ak tawféex ak yërmande yàlla sunu boroom subhaanahu wa ñu del siwaat rek ci suñu jotaay ak ndaw ñi muy jotaayu xam-xam di jotaayu fàttali ak di jàngale ñu nekkoon nag di jàngale ci téere bii ñuy wax tasawadu sixaar sunu jotaay bi mu nag jàngale woon nañu ci bunt bi jàngale julli bu la imaam rawee nan nga koy fayee ak waxtu julli yi fi muxtaar yi tàmbalee ak fi daruuri it tàmbalee ba fa mu yam jàngale woon nañ nag jullik suba niñ koy fayee ba mu jeex ak jullik tisbaar nañ koy fayee ba mu jeex kon dañuy fas yéene tàmbalee ci julli tàkkusaan ci sunu bindu tey moo tax mu ne wa waqtu xaasrina waxtu sunu tàkkusaan in jala feeñ na min tamaamil qaamati ci matuk taxawaay ba al ula bu njëkk ba ilaa waxti istiraari jëmti waxtu geluk suuf wa kon mu ne kon waxtu tàkkusaan moom muxtaaram mi ngi tàmbaree kon buñ ko bëggee xam ca fañ la waxoon ne la tisbaar fa la muxtaar ma yem nga xam ne lañ laa waxoon ne la heure boo ba sa takk ndee tolloo ak sa jëmm foofu la muxtaarum tisbaar yam kon foofu la muxtaarum tàkkusaan di dugg see dem nag ba nga xamee ne xool nga sa takk ndeer ci misaal mu mat sa jëm ñaar mu ñaarte ko nga xam ne buñ nee waxtu gelug suuf wa buñ demee ba nga xamee ne naaj wi tàngan ci tisbaar gi nga xam ne day weex taal tàng dem na ba tàkkusaan gi nag nga gis ne naaj woowu mi ngi tàmbalee fer nga xam ne léegi day dem ba ker gi day tàmbalee dugg nga gis ne naaj mi ngi tàmbalee am ay xonq-xonq kon foofu la waxtu tàkkusaan moxtaaram yem loolu nag dañ koy misaal rek ngir ki bëgg a jàng wala kiy jàng téere bi mu xam waxtu yi waaye nag bu dee suñ jamonoy tey jii nag suñ boom def na waxtu yi jàpp ne jàpp ne goo xamante ni daanaka foo toll di nga mën a xam waxtu yi fi ñu tàmbalee ak fi ñu yam loolu xéwal la gu ñu suñu moom defal kon li ci ëpp solo mooy nga xam bula la julli gi nan bu koy fayee mu ne wala xasu tàkkusaan fil xadaa i ci ak fayam mislu zuhri kem tisbaar arfan mbir muy xaraf bi xarfin ci xaraf inda kulli xibrin fa bépp fóori mu ne nag boo bëggee xam waxtu tàkkusaan nañ lañ koy fayee neen na nga jàpp waxtu tisbaar wam waxoon nañ koy fayee mook tàkkusaan benn lañ xarfun bi mooy benn lañ na ngay fayee tisbaar boo ko xamee rek lu la faat tamit ci tàkkusaan noonu rek nga koy fayee ndax ñoo ñaari julli yooyee ñoo yem ci ay rakkaa ñoo yem te nañ leen di jullee ñooyam ca nañu leen di fayee mu ne wa waxtul maqribi waxtu timis min xurubi samsi mi ngi tàmbalee ci sawuk jant ba ilaa bi safaxi jëm ci fàddu safax bi baje bu ñu sellal mu ne nag bu dee timis nag muxtaaram ma nga tàmbalee ci bu jant bi sowee rek timis dugg si na euh, bu jant bi sowee rek kon da ngay jàpp ne muxtaaram timis dugg si na fi mu yemee nag mooy fàddug safar boo xamee ne tey julli nañ timis ba pare nga gis ne xonq-xonq yooyu ñu waxoon ne moo des ci tàkkusaan bi raaf na ba jeex kon ca la muxtaarum timis yam mu ne fa in yafut ka ndeem faat na la rakka xatun ab rakka min haa ca moom timis fa xum na nga jóg mu kabbiran mbir muy ngay aji kàbbar wajjaxar ta nga biral bi suuratin ci saar wa um te nga jub kitaabi rabbika ci ndey téere sa borom alkarimi kay aji tedd al ka gën a tedd tafus kon nga tuufu bi aji rabbika ci yoolub sa borom al mukarrami kay aji terare mu nekkoon bu fekkee raw nañ la ci timis benn ràkka nga xam ne benn ràkka rek lañ la raw ci jullik timis ni nga koy fayee mooy bu imaam sëlmalee da jóg te boo jógee nga wax allahu akbar nga kàbbar boo jógee dangay ngay boo kàbbaree jàng faatiha ak saar daal di koy biral mooy tari ko ci kaw daal di rokon boo yéegee ci taaya nga taaya daal di sëlmal ndax benn plaque rek lañ la rawee na la ko imaam rawee mooy daf koo jàng faatiha ak saar ci kaw kon da nga koy jàng faatiha yooyu tamit ak saar ci kaw daal di taay daal di sëlmal mu ne wa aysu ma yafut ka mu la faatee mooy fu mu la rawee rek min haa ci moom timis rakkaxataan ñaay rakka fa xum na nga jóg bi sawit takbiir ci lu dul kàbbar bi tawaan ci lu dul yeex wal taqra te nga jàng alfatihata fatiha almuhazama ba di buñ màggal sarfal ulu sarfal ulumi kay nday xam-xam ya wal munaa ak mbébét ya almukarramata badi bu ñu teral wa suuratun ak saar bi jahri ci biral wal tasahud ta nga taaya wa jix ta nga dikkee bi misli comme lii wa sallim ta nga sëlmal tox madin def na la sant mu ne nag bu fekkee timis dañ la cee rawee ñaari rakkaan nga xam ne danga ñëw fekk imaam jàng ñaari rakkaan yu njëkk yi julli ko nga xam ne benn ràkk rek nga fekk muy ràkk bu mujj bi te boobu imaam mi ngi ci tari faatixa dong da ko yàll mooy da koo jàng ci suuf kon bu imaam taayee ba sëlmal dangay ngay jug boo jugee nga jàng faatixa ak saar te tari ko ci kaw faate ak saar nga yendi tari ko ci kaw te boo jógee nag doo kàbbar xam nga waxoon na la ci bu njëkk ba boo jugee da ngay waaye bu dee nag ñaari rakka la rawee rakka boobu boo jugee doo kàbbar da ngay jugee tàmbalee tari nga tari faatee ak saar ci kaw daal di toog daal di taaya da ndax li tax mooy imaam ànd nga moom benn rakk ak yow sa bi nga am boo leen boolee day nekk ñaari rakka ñaari rakka boo ko da ngaa war a toog taaya kon da toog taaya boo toogee taaya jugaat jàng faatiha ak saar ci kaw daal di toog daal di taaya daal di sëlmal kon noonu lañ koy faye kon ñaari ràkka ngay am toog taaya jàngaat beneen ràkka toog taaya daal di sëlmal ndax kon julli gi day am ñetti ñetti lii lay am ñetti taaya lay ndax taaya gi nga ànd ak imaam ak sa taayeb ñaareel ak sa taayeb ñetteel kon muy ñetti taaya kon noonu lañ koy faye mu ne amal isaa u ndaal gee fa muqi bi safaxi mi ngi tàmbalee ci fàdduk safax ga awwaluha aji njëkk aji njëkk séenam xattaxan ci lu dog xalal mu faxe ci lu ñu dëppoo li sulusil uwali ci sulus bu njëkk ba min zaaka ci googee almaxibu mooy fàddu ga muxtaaruha aw muxtaaram moom gee yaxtaaruhu def na ko tam tànn la bi bépp aji xelu mu ne kon fekkee gee nag muxtaram ma nga tàmbalee ci faduk safaga bu ko waxee mooy fi timis yam ndax timis bi nga jullee muxtaram ma nga tàmm ma nga yam fa xonq-xonq yi demee ba raaf fa la muxtaaru timis yam lay tàmbalee fan la yam boo xaajee guddi gi ñetti xaaj boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu njëkk ba fa mu jeexee rek fala muxtaaram gee jeexe moo tax mu ne muxtaaruha aw muxtaaram yaxtaaruhu def na ko tànn kulla bi bépp aji xel muxtaaram kon nga yem ca ñetteelu xaaj bu njëkk ba ci boo xaajee guddi gi ñetti xaaj ña xaaj bu njëkk boobu bu jeexee rek muxtaaram gee foofu la yam daruur yi gën tàmbali jëm ba fajar jot moo timis ñooy seen darul li ñooy ànd ba fajar mu ne nag fa in yafut ka neempaat na la rakkaatun ab rakka min haa moom gee fa xum na nga jóg wala tu kabbirta kàbbar um na nga jublu umma zikrillaahi nday téeréb sa borom ba wa suratun ak saar jëxran ci biral wa baxdaha ginnaaw ba wajlis ta nga toog baax daxaa ginnaaw ba wal tasa sa xët ta nga taaya wal sallim ta nga te kiis kon nga ñaw mu ne fekkee dañ la ci gée benn fàkkara boo jógee doo kaabar da ngay jug tàmbalee tari xam ne benn ràkk rek lañ la rawee ci gée benn ràkk boobu mooy ràkk bi imaam njëkk a jàng jàng faatiha ak saar tari ko ci kaw kon boo jógee rek dangay ngay jug tàmbalee tari boo jógee rek da jóg taxaw tàmbali tari boo taree faatiha ak saar ci kaw toog taaya daal di sëlmal ndax benn ràkk rek la rawee nam la ko rawee nan nga koy fayee mu ne we in yafut ka ndeem faat na la rakka xataxa ñaay rakka ci moom gee fa xum na nga jóg mu kabbirat ngay aji kàbbar wajxar ta nga biral bi suuratin ci saar ta um goog jublu na min bax di ummi zikri ginnaaw nday alxuraan wa su ak toogaay ba baynahuma seen diggante ñoom ñaar manaxahu tere na ko su kilifa ga li kaw ni haa ngir ak nekkam saalisatan di am ñetteel mu ne nag bu fekkee dañ laa rawee ñaari rakkaa ci gée mooy rakk ñaari rakkaa yu njëkk yi nga xam ne dañ koo jàng faate ak saar tari ci kaw ñaari rakka yooyu lañ la rawee kon bu imaam sëlmalee da ngay jóg kàbbar allahu akbar ndax ñaari ràkka la daal di jàng faatiha ak saar ca kaw waaye doo toog ci diggante ba de da ngay kon na ngay boole ñaari ràkka jàng faatiha ak saar ci kaw daal toog daal taaya daal di silmal moo tax mu ne la tere la nga toog ci diggante ba kon ñaari rakka yooyu kenn du toog ci diggante ba da ngay boole ñaari rakka yooyu jàng faate ak saar ci kaw toog taaya daal di sëlmal kon noonu la ñuy bu ci gee buñ la rawee ñaari rakka mu ne wa aysuma yafut ka fuñ la rawee min haa ca moom gée baax na naa ginnaaw ba nga xamee ne xad sallama sëlmal na moom imaam salaasatu rakkaxatin ñetti rakka fa xum na nga jóg bi ummi ci jàng nday alxuraan mooy fa mooy faatixa rek wa suratin ak saar wàjj xar huma nga biral ñoom ñaar za fahmin ngay boroom dégg min xayi takk biin ci lu dul xubaylu ak njëkkam waqu xodd te nga jekk wa aadi te nga dikke baax da jalsatin ginnaaw toogaay ba tasahuda ak taaya waxum te nga jóg baax du ginnaaw ba wa jix te nga dikkee bi rakaatin ci ab rakka bu ummi kitaabi naa ci ndeyi téere yi ci ndeyi téere yi sunu borom wa suratin ak saar xum na nga jóg laata um bul jublu li jalsati ñeel toogaay ba wajj wa bax du ginnaaw ba jëx rën na nga biral wa xum nga jóg wa ji nga dikke bi rakkaxatin ci ab rakka bi ummi ci nday téere borom mooy faatiha sirran ci yàlla taxruj kon nga génn ci ak fay mu ne nag fekkee dañ la rawee ci julli gee ñetti rakka nga xam ne yow benn rakk rek nga am ci gee kon benn rakk rek nga ci am muy rakk bu mu ba kon na nga jóg ci rakk bi ngay njëkk a fay kon na ngay jóg te doo boo jógee doo kàbbar da nga jóg rek tàmbalee tari looy tari faatiha ak saar boo taree faatiha ak saar nga toog taaya ndax am nga rakk bu njëkk ci ilimaan rakk bi la ilimaan rawee mooy bu njëkk ak sa rakkam bi nga fay bi nga njëkk a fay faatiha ak saar ci kaw tari ko ci kaw mu ngi muy muy ñaari rakka kon looy def toog taaya ndax am nga ñaari rakka mu dese la ñaari rakka nga jógaat jàng faatiha ak saar ci kaw daal di toog waaye diggante boobu doo taaya doo toog taaya da ngay jógaat jàng faatiha dong dal di koy yalu jàng ko ci suuf toog taaya daal di sëlmal kon noonu lañ lay fayee noonu ngay fayee bu fekkee raw nañ la ci gée ñetti rakka rakka bu njëkk ba dangay jóg jàng fa faatiha ak saar te doo kàbbar dangay ngay jóg rek tàmbalee jàng faatiha ak saar ci kaw toog taay muy muy ñaar ndax imaam benn rakk nga ci am ak sa rakkaab ñaareel muy ñaar nga jógaat jàng faatiha ak saar tari ko ci kaw daal di koy ensonné ñaari rakka yu maam boole ñaari rakkaa yi ci des waaye nag bu mujj bi dangay tari faatiha dong daal di koy jàng ci suuf daldi di taaya daal sëlma mu nekk ñetti rakk kon noonu lañuy fayee kon gée buñ la ci rawee ñetti rakk kon noonu lañuy fayee gée ba kon foofu la julli gi yam mu ne nag boo defee noonu kon génn nga ci ak fay ndax jàngal na la fay suba tisbaar tàkkusaan timis ak gée te juróomi waxtu yooyu mooy julli juróomi kon fi mu jeexalee mu ne wax lam na nga xam ne bi ann al fuqahaa na ko woy dégg féq ya sawaru melal nañu idraaka rakaatin jot ab rakka ala ma xararu lañu saxar bi an yu màkki na ci bu dëgëralee joxti daa roy ja ya day ñaay roxoom min rukkubatihi ci ay bëti amum maa imaamin ànd ak imaam muqtadi te ka muy rey amal lësi ndaal ka nga xam ne lam yajit dikkewut tam ki yi naan ak dëgër fa lay sa mudrikan déet muy jot lëxë di ko ñeel yaqiinan ci lu wóor mu ne kat ki nii dafa bëgg a jot xam fan lay jotee ab ràkkaa maanaam bu fekkee ju julli nga bëgg a xam ba xam am nga ci julli gi rakka wala amoo ci rakka lay leeral mu ne boo demee ci borom xam-xam yi melal nañu ne bu fekkee imaam day julli ba toll ci rukon mooy jàpp ay bëti oomu kii roy bu fekkee dafa dab foofu imaam fekk ko foofu moom it jàpp ay bëti oomu ba mu dëgër fekk imaam jàpp ay bëti oomu kon boobaa am na rakka ci rakka bu mu ko fekkee rek na jàpp ne rakka boobu am na ko. bu dee ñaareel ba bu dee ñetteel ba bu dee bu njëkk ba bu fekkee imam jàpp ci ay bëti umam rek mu fekk fa jàpp ci ay bëti umam na jàpp ne am na ci rakka boobu ab rakka bu mat sëkk doonte fekkul ñuy jàngee mu ne nag fekkee nag fekkut ci imam mu jàpp bëti umam na jàpp bëti umam ba kon amatul ci rakka boobu ab rakka mënu ko am dabu ko moo tax mu ne waxul wax nañ liman man ñel ka nga xam ne addaraka jot na fii tasahudi ci taaya imaamuhu imaamam xum na jóg wabtadi tam tàmbali salaataka ak jullee mu ne waxul ak muy wax kon kan lay wax ki nga xam te ni dafa ñëw fekk ci imaam mu taaya taaya ju mujj mu fekk fa imaam mu ne kooku kon day mel ni amut julli gi benn ràkka kon li muy def mooy bi imaam sërmale na jóg tàmbali ak julleem waaye bu jógee day wax allahu akbar rek daal di tàmbali ak julleem mel ne mi ngi doo tàmbali ak julleem ndaxte ci taaya la ko fekk waaye nag dina am ab yoolu fekk gi mu ko fekk ci taaya ànd ak imaam dina ci am tiyaaba kon noonu la ñuy daje loolu noonu la ñuy dabee ak julli ci imaam kon foofu la bunt bi yam kon dañ koy yamale foofu ba beneen jamono insha allah ñu ngi baalu ñëpp xaq di wax ne lépp lu fi dëng rek nañ xam ne suñ jëmm yii la yu xeebu yii ak ñàkk xam-xam lu fi jub ñoo xam ne suñ borom la subhanahu tabaraka wa kon ñu ngi wàcc kàddu yi di wax in uridu ilal islah ma sataxtu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullah sëriñ bi doon sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey